da nga wor da nga nangam nangam de après day jël wàllam ci nag bi. kon Karim yow da nga jàpp ne que ba tey le premier ministre Ousmane Sonko c'est lui qui oriente le président Diomaye. non pas tout à fait pas tout à fait gis nañ am na loo xam ne feeñ na bari ki démb. muy lan gis nañ ni non bu gis nga président Diomaye nu mu waxee da gis ni. ngay gis ni concernant le discours du président dañuy dugg foofu. Mhm. ñu gis euh, l'affaire Samba Ndiaye. Mhm. mu nekk question bi nga xamante ne taskatu xibaar yi jot nañ ko laaj suñu njiitum réew mu évoquer la clémence. ñu gis avant que le président di génn Ilimaanu Jawriñ Ousmane Sonko wax ne que il faut que mu am des mesures correctives ci hmm. wàllu boobu tamit lan moo si. non il y aura il y aura affaire Samba Ndiaye ci naka. na xamoo nga xamoo jën naka c'est-à-dire dafa am loo xamante ni il faut ñu comprendre ko quoi il faut que waa Pastef qu'ils apprennent à respecter le président de la République Sénégal xam ne Diomaye mooy président quoi loolu gis nga loolu te loolu xam nga ñun dofuñu quoi xam nañ ni président mënul def décret boo xamante ni. premier ministre amu ci accès quoi wala yëgu ko il faut arrêter de baratiner les gens jàppe nit ñi ay dof Samba Ndiaye bu fekkee dafa am dossier bu fekkee nomination yi feeñee bu bu bu ko yoon soxla mais kan koy téye. kon yow jàpp nga nekk avant la nomination le premier ministre. mais il bien au courant. ah bon moom noonu lay def day cof di bàyyi rek. day day naxaate quoi. et d'après li Ousmane Sonko wax. yëpp yow jàpp nga ne il était au courant de la nomination de Samba Ndiaye man ko yëg man loolu dama ko gëm keneen ku gëm leneen sa problème la fii nag ku neex dégg lu la neex bu la neexee ñoo la jant baax yi nga gis leneen mais politique la day def politique bay day def ay joué ay pion pion pion pion yooyu mooy retourné contre lui ba koy def sax jomaay te loolu moo tax jomaay au fait en réalité déception yooyu yoo xam sax ñun

après waa Pastef yëpp dañuy kon dañuy jug di saaga Diomaye ils vont lui traiter de tous les noms d'oiseaux Diomaye bis bu dëggalee boppam nekk président bañ a nekk ci affaire ñàkk fayda bañ a nekk ci affaire parce que damay wax ma ni jub jubal jubanti dafa am lu ko jiitu. mais est-ce qu'aujourd'hui on ne fait pas la part des choses quand le président parle de président du parti Pastef. xoolal il faut arrêter avec ça on nous avait dit que y aura pas ñii ban xam-xam lañ fi am bu tax nit ñi war leen topp ban tic tac ban tactique tic tac wala duut wala dribble wala tactique extraordinaire lañ fi def boo xam mooy tax ñu taxaw naan man dama wax ne ne jeu Macky Sall bii ni Macky di def muy politique politicienne bi classe politique politicienne bii nga xam muy politique classique bi ñoom bu ñu ko defee dañuy daanu loolu wax naa ko ba tey mais après ni Macky Sall di bu demee bay jur di recruter ñëw di a mais nga xam ni kii ni Macky doon def lay def donc moom laal dama la en réalité ndeketey ñoom seen adversaire politique sax dañuy jàng ñoom dañuy bi ñuy jàkkaarloo Macky dañoo jàng sax ak caay-caay ci Macky ba koy jël di dem di def li Macky Sall doon def. mais man après laa soog comprendre ndeket Ousmane Sonko dafa mujjee fan Macky Sall quoi. mais Karim malgré moment yi. Mhm. tension yi nga xamante ne amoon na ci biir réew mi. Mhm. ñu déclencher une machine judiciaire sur mhm. une personnalité pour l'empêcher. à se présenter sur ces élections. ce que Ousmane Sonko su amul woon une stratégie politique. duñ ko def comme ni ñu def Karim wadd xalifa Sall ak tous les autres acteurs politiques. stratégie politique ban la ban mooy stratégie politique bi mooy le fait mu def choix wu taxaw ne nañ nañ jël Diomaye loolu ngay wax le fait mu def choix wu Diomaye deuxième deuxième euh, kii wu parti bii mu jël ko def ko Diomaye Diomaye nekk président. loolu mooy xam nga on a activé taxaw léegi xam nga on a activé. waaw yi nga xamante ne dañ ko mhm. jël teg ko ci kaw mhm. jamono jooju Ousmane Sonko avait dit que ce sont pas des dossiers juridiques. Mhm. ce sont des dossiers politiques donc man je répondrai de manière politique. donc loolu moo tax ma ne la est-ce que si Ousmane Sonko n'avait pas adopté une stratégie li woor ba woor mooy kon ba tey ji mi ngi ci abattoir bi. mais non attends attends qu'on se dise la vérité le était là. comprendre parce que ce qui s'est passé ak. parce qu'il y avait une injustice. mais dégg nga wax la. waaw bien sûr il y une injustice loolu on en discute ko xeex ñun. waaw man nag foofu lan laa foofu laay ñëw la xam nga dafa am dafa am dafa am mhm. la sacrifié la. waaw toroxal la quoi. Mhm. ñëw peuple bi jug taxaw ne Macky loolu du fi amee. c'est le peuple sénégalais au fait yu amu fi de le peuple était là ñoom Macky Sall moo la xam ni bu bu bàyyiloon réew mi moom moom moom du sedd ci moom te il aura mënu fi woon toogaat deux minutes de plus xam na ko mais loolu du loolu du stratégie kenn bépp sénégalais bi ñoo maaroon douze ans la fa Macky Sall def jeexal sénégalais yi maar ci fitna ak pression bi sénégalais yi nekkoon ak toroxalaate bi ak détournement yi scandale yi fen yi wor yi sàcc yi ray yi mais loolu mais mais yi mais loolu loolu loolu c'était c'est affaire Ousmane Sonko c'était juste la goutte d'eau bi nga xam moom mooy moo déversé si si si kii bi si euh, jàmbaar du comprendre nga ma expliqué baax donc nekkul loo xamante ni dama la bëgg expliqué li ma la bëgg wax rek en mooy nekkul loo xamante ni du benn nit moo toog rek ñu ne dafa extraordinaire dafa aay dafa nangam nangam su doon aay la kon ñu ngi nii ci six mois wala huit de pouvoir ana aay bi ils ont la à les occidentaux ak impérialistes pour mën au moins am lu ñu lu ñu mën a mënuñu sax wàññi mburu est-ce qu'il est possible de réparer en un laps de temps. Mm-hmm. les dommages qui ont été posés. durant tant d'années. xoolal moi moi j'ai jamais dit ça moi j'ai juste dit que démarche yi par rapport aux démarches. Mhm. mais xanaa lu mu dee dee dee war nga mën a sax xanaa wàññi wàññi dund bi sax subventionné dund bi booy wootee cagnotte nga wootee boo xam peut-être nga ne cagnotte bi kat pour pour ñu wàññi ceeb bi la. on a vu que l'État a posé des conditions. Ah. sur euh, wàññi dund bi. waaw. Ah. si ay weer yi nga xamante ne ñu ngi génn et dans ce sens là gis nañu leen. suñu njiitu ban dund moo wàññeeku da nga gis dund bi wàññeeku yow. gis nga courant bi nu mu cher yow. gis nga train de gis nga kii en fait euh, kii niveau de vie wu sénégalais yi instant yi fi mu toll jafe-jafe yi sénégalais yi dund ci ci ci ci ci ci jafe-jafe ñuy dund ci dund mais denrée alimentaire bi courant ndox mi gis nga courant nu mu chéré est ce gis nga ndox nu mu chéré instant yi ni mais man man dund bi ñuy wàññi man laa xam ban dund la il faut pas man xamuñu man man j'ai jamais dit que ni le Sénégal que régime bi dafay ñëw mu defar Sénégal ñu gérer Sénégal wàññi dund gi dëkk bi yëpp normal ci six mois je l'ai jamais yi kon six mois yi moom dara mënu ci nekk yow réforme déjà waroo woon xaar dara tu le pouvoir nga def réforme yoo xam da ngay toog def assise yoo xamante ne ci saasi xam-xam ne leen man lañ fal on change tous les textes xaaruñu benn constitution jël constitution bi teg na le ñu ne dañuy xaatim woo borom xam-xam ñu toog xaatim constitution yu mais si on écarte la constitution. Karim mais parce que constitution mais attends constitution Sénégal daa baax. c'est copié 90 pour cent du français. on est dans état de droit mais état de c'est ça que je vous dis waaw si si on parle d'état de euh, droit bu ñu ko waxee boo demee topp boo demee nga topp Ousmane Sonko ci discours am na nga naan ana état de droit bi la moo taxaw ñu taxaw di jàkkaarloo gars yi bu woote police woote ñu ne ñëwuñu bu ko bu ko justice wooyee mu ne demul la moo taxaw ñu jàpp ay 5000 jeunes ay boy yu am 8 ans 10 la moo tax ay juge taxaw di jàpp nit yoo xam comme par exemple defoo dara ñu jàpp la tëj la yóbbu la la ñu jàpp la instruction. est-ce que loolu euh, duñ ko par l'injustice qui était dans ce pays là. waaw mais injustice boobu la moo ko maye ils ont eu les textes y avait des textes yoo xamante ni moo leen may loolu tey boo demee man su ma mosaan dem jàkkaarloo juge su may tëj mais ay textes damay liiral baal baal du ma ñëw rek man ñëw ma rek ma xam jàll jàpp ma tëj ma de ay texte damay liiral ñaan bu ñu ab bu ñu boolee texte bi xam nga mu fekk si texte bi bu ñu ko boolee 18 ah, xaw ma lan da ngay obligé euh, bi euh, juge procureur bi du mën ci yow dara genre procureur moom rek mooy am pouvoir ci kaw juge bi mais loolu ay texte la woon di. moom laa wax ma ni man dama man Sénégal li ma xaaroon ci Sénégal mooy raxas bale rupture yalandi toj étage bi màbbal ko dindi lépp changer lépp jël assemblée nationale tege ne changer réew mi woote assise woo sëriñ si woo jàngu bi wo bois sacré yi woo Sénégal yëpp étude université universitaires yi wala ñëpp ñu toog bu ñu toogee ah ñu ñu soppi réew mi bind constitution bees waxtaanee réew mi ñu toog presque quarante jours yoo xam ni ci lël la ñu nekk lël borom xam-xam yi di defar Sénégal. ñu xaatim ko bind ko woo borom xam-xam teg constitution bees teg ay loi yu bees ñu changé ko système système d'enseignement bi intellectuellement sax dafa tënk dafa tënk suñu homme politique parce que il réfléchit pas pour le Sénégal seen xalaat ni ñuy xalaatee ndurawul ak Sénégal parce que ñàng mi nag ku la yar jox la jikkoom te ñàng mi c'est l'école française c'est que ma doon leen séntu wala fi keroog leen séntu ci fusil ñoom ñu wàcc ci sareetu mbaam léegi nag ba par force pare ba fexe ba nekk loo ma ci ay détails te man loolu détails yooyu du man loolu laa expliquer chaque jour moo tax ma ni élection yi di am dina am mi ngi am élection di am li élection yi di am li may woote mooy nañ def jàmm ñu ànd ak jàmm te ñu bàyyi tooñ réew mi réewu jàmm la bàyyi fitna yi ñuy tooñ bàyyi dem dugg buntu kër jàmbur yi dàbb di saaga nit ñi Barthélémy Dias na ànd ak dal mu xam ne réew mi am na ñu bëri ñu ko fi respecté kilifa la am na loo xam du cëram comprendre nga. lu ma léegi laa lay wax quoi opposition bi ñu ànd ak dal ba pare ñoom parti au ak ministre de intérieur Jean Baptiste mu wax ak waa Pastef ne leen ñu bàyyi tooñ bàyyi fitna yi ñuy yee parce que fitna yàlla rëbb na ko yee fitna fitna baaxul kenn du ko yee nit ñi nekk ci jàmm réew mi ànd ak dal parce que cinq ans de a ak xuuroo ŋaayoo dañ ci war a jugee tu vois ce que je veux dire président Diomaye li may daaneel si waxu président Diomaye. dama l' affaire Samba mhm. l' affaire Samba Ndiaye dama Y'aura d'autres Samba sa ça je loolu dama ko wax waxaat ko affaire Samba dafa am ñaari chose parce que gis nañu sax le président Macky sur un communiqué mu wax ne que il faut que tamit ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon ñu am ngor ànd ak seen dignité continuer si perspective bi nga xamante ne moom la ñu nekkoon. xam nga sànq bi ñu wax dafa am fu ñu génn ma ne la. Mhm. ma ne la bu fekkoon dañuy teg Sénégal ci yoon pour fexe ba am majorité assemblée nationale pour mën a fexe ba ñu def. Euh, Euh, fexe ba maanaam abrogé amnistie bi xam nga. Mhm. mën a tëbal fexe poursuite yi topp affaire yooyu fekkoon loolu mooy am kon Macky Sall du am possibilité dem di nekk ay ay tête parce que après kon balaa nu kiraay moo koy moo koy moo koy moo koy téye compromis yi ñu defal Macky Sall nañ ñu ko wax ñun bi ñuy waxante ñoom neneen dem leen ngeen ngeen naxante ak Macky Sall ngeen fexe ba élection am ngeen jël pouvoir bi waxuñu la woon ñu dem jël ay compromis yoo xam ni suba Macky Sall day mën a nekk ay tête de liste li fi xew yëpp liñ def wax. engagement bi ñu jël ñoom nañu ko wax lan lañ yan engagement lañ jël ak Macky Sall ba Macky Sall ñu nekk tête de liste. mais qu'est-ce qui empêche le président Sall de venir ici au Sénégal et battre campagne. je sais pas peut-être jàmm peut-être je sais pas dafa changé avis xaw ma loolu amoo ci information yu wër parce que en tout cas ñoom ñoo ko seetal ah Sonko moo gën taxaw ñëpp taxaw di ko xool mu ne Macky du suñu adversaire nekkatul suñu adversaire adversaire léegi kon ñun ñooy fajal suñu bopp quoi après après ñoom ñu génnaat naan Macky Sall bu ñëwee nangam bu fi ñëwee na ngeen ko def nangam nangam ñun ñooy fajal suñu bopp ñun jël pouvoir yëpp ah? mi teg ko sa loxo ndax am yaakaar ne di ñu fajal suñuy rongoñ fajaloo ñu suñuy rongoñ yéeg ngeen ñun ñooy sàngal Macky Sall bu ñëwoon fii nii man su ma ko rombee du ma ko sax xool ñun ñooy fajal dem di attaquer di attaquer Macky Sall ci mbedd bi loolu ñun on continue ay des voyous à chaque fois di nekk ay bandits ci di sànni ay xeer ay nit di di ay ay ay politique wala di daje ñoom ci avion dafa jël suñu bopp suñu soxla te ñu fal nguur goo xamante ne euh, nañ ko dóor nañ ko saaga noonu la ñu réew irresponsabilité boobu buñ ci kenn dugal tu vois ce moo tax la li en réalité ku koy wax doo jàmm léegi jàmm bi tax ñuy wax mooy man la président Diomaye maa ko wax fii na ko Sénégal yi noté jàppal date bi après day jël moo jël wàllam ci nag bi après ils vont le traiter de tous les noms d'oiseaux dinañ ko saaga warkat la dafa def nangam nañ ko saaga ñoo la def nangam ñoo la def président ñoo la ñoom na seen i mbir moom yàlla bokk ci nangam do dinañ ko daggal dañ ko wax lu ñaaw lu nekk dinañ ko ko wax parce que en réalité bu fekkee ni nanguwul topp Ousmane Sonko ci enfantinage am bii mu nekk nii ngi fi xale yi muy def ak fayantoom yi irresponsabilité bi nekk ci moom nii su ko Diomaye nangul topp ci loolu rek après dañuy attaqué Diomaye parce que dañoo nekk ci fayantoo nekk ci bassesse boo xamante ni loolu c'est dépassé politiquement Sénégal dépassé dépassé woon na foofu ci niveau ci niveau politique ci diplomatie te Diomaye quoi qu'on puisse dire am na mat matu moom moom politique gul quoi. et ñu gis le premier ministre tout le temps suy génn di wax day woote à ce mu am une opposition républicaine jiital li nga xamante ne moom mooy élégance politique. vous pouvez vous opposer mais par contre il faut respecter certains principes. Mhm. waaw ci wàllu boobu. mais une opposition une opposition boo xam ni dafa responsable. dina taxaw naan ñu dañu ay tapet xam nga baat tapet lu muy firi mais gars attends cest xam nga gis nga man man dama bëgg rek euh, amul gis nga Serigne Moustapha bi mu génnee wax ni wax benn affaire expliquer affaire Sonko ne Sonko euh, daroon dara dalu ko woon si hôpital bi ñoom dañ kon attaque di ko saaga quoi. bi ñu koy saaga di ko saaga après benn instant rek après ay responsable passif dañoo génn quoi def ay publication rek booy yi bàyyi saaga yi fii ku fi booy yi saaga ñoom la neex lu fi xaw fii ñoom la neex ñoom ñoo nekk ci grand on sait très bien ku mu bëgg ñu arrêté saaga yi dañ koy arrêté li ngay gis yëpp mu xew ci réseaux sociaux yi c'est l'image de Ousmane Sonko en personne il faut il faut arrêter gars yi dañ bàyyi naxante yi ñuy nax nii quoi il faut li ngay gis réseaux sociaux yi Ousmane Sonko la c' est c' est l' image en réalité dëggantaan moom la man si affaire naafiq yooyu man nekkuma si de moom la su bëggoon mu arrêté day arrêté man sama njaboot su ma taxawee bu ñu defee moom la neex parce que loolu la gëm parce que loolu la gëm dafa gëm ni ñoom dañoo gëm ni nit ñi ak attaque yi ñuy attaqué ñi moo leen siy génnee te loolu ça va contre te loolu après moom dina autoriser gars ñu naan def ko dinañ ko def joomaay te commencé nañ ko le président de la république barki démb mu yëkkati ay kàddu mhm. wax ne que je le président de la république mhm. nekkuma fii di jëlal part kii que ce soit mhm, le premier ministre gis nañu benn sorti bi nga xamante ne dama koy évoquer am na ku nekkoon biir Pastef yëkkati ay kàddu yu njagas biñ ko contacter mu ne na yoon def li nga xamante ne moom mooy cëram mais loolu échappé na ma kan moo yëkkati ay kàddu yu ñagas parce qu'on a vu ku nekkoon euh, euh, euh, koo xamante ne Pastef la bokk yëkkati ay kàddu yoo xamante ne rafetlu wuñ ko. président Ousmane Sonko bi mu demee Grand Théâtre Esplanade Grand Théâtre mhm. évoqué woon na ko ba sax nee na yoon dina def li nga xamante ne loolu la akimoo. waaw mais mais loolu échappé na ma frère loolu échappé na ma en tout cas li ma la mën a xamal lenn ko quoi mooy am na si yoo xamante ni en réalité buñ buñ ci defee politique lañ ko yàq. d'accord parce que président Sonko moo toog xam nga Sénégal di ko xool mu taxaw bi mu taxawee Grand Théâtre mu ne. ministre de la justice envoyé na ko vidéo. Mhm. di ko wax ndax ma arrêté diw. loolu du saan nga ko. mu ne ko non mu ne ko defal defal xam nga lu ko lu nga ko tontoo di sax. defal waaw defal sa liggéey. waaw moom moo ko wax waaw. daf ko dañ ko laaj. tu vois ce que je veux dire loolu rek déjà loolu yàq na. tout lépp lu doon expliqué. mais est-ce que le fait que le premier ministre taxaw en public wax ko. Mhm. nekkul un message bi nga xamante ne mi ngi koy lancé aux militants de PASTEF à la mhm. retenue. que ñu nekk euh, tamit que ñuy bàyyi xel si kàddu yi nga xamante ne ñu ngi koy yëkkati. militants de PASTEF ñoo fal ñoo fal pouvoir bi de. te ñoo la gën a xam lan lañ doon wax fii ci justice wala ñoom ñoom ñu bees lañ ay ay ay ci affaire yi wala ñoom li ñu doon voté xamuñ ko ñun peuple bi dañoo jugoon pour xete voté pour am benn justice boo xam ne xola day équitable du fi nekk du nekk justice partisane justice quoi en réalité justice quoi wala il fallait mu taxaw foofu noonu expliquer leen loolu pour ñu xam ni léegi justice ku tegul ci yoon dafa am ñu ñuy bàyyi ñu ñuy jàpp wala moom foog mu wax lépp non mais gars buñ déggoonee quoi dañuy dugg ci beneen partie bi mhm. euh, gis nañu tamit euh, suñu njiitum réew wax euh, sur l'affaire Bougane Gueye Dany mhm. jotoon nañ ko évoqué mais il faut que ñu jaaraat ci vu que le président de la République s'est exprimé sur ce point-là alors le cas de Bougane placé nañ ko su mandat de dépôt mhm. procès am war am le 30 à quoi s'attendre réellement non en réalité moom laa la ma ne la c'est un peu ça dafa ñaaw c'est très lâche de leur part darate buggaan ci yu ñàkk fayda yi nii ay dëri dop dop tempéré xaw xam nga mal benn affaire gendarmerie bi téye woon sonk ne ko doo jàll fii jaaral nii mhm. gendarme boobu gendarmerie boobu moo téye buggaan ne ko doo jaar fii jaaral nii déggoo ma de cest à man la moo tax Sénégal à chaque fois yow koo àndal rek nu mu ko defee noonu la rawati nag bu yoree pouvoir nga xam ne robinet yi nga xam fa la ndox mi di xellee pour nit ñi mën a naan buggaan dan dani supposons dof la quoi par exemple par respect maa ngi jégalu waaye di bu leen neexee dafa bëgg siw dafa bëgg ñu kii dafa bëgg nekk day toppandoo Sonko day lii naam nangam lu leen neex nañu wax mais doomu aadama en personne nan la war a toll tuuti tuuti bu tax ñu war a bàyyi lu toll ni pouvoir di ko toroxal di ko tëj. ci loo xam teguñu euh, comme leader yi mu àndaloon parce que Bougane était accompagné. mais gis nañ ne que. ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon. Mhm. bi ñu ñëwee face aux policiers. Mhm. dañoo taxaw amuñu beneen réaction mais dégg nga rien fait mal. parce que ici tamit il s'agit du protocole présidentiel. carrément démocratie lañ wax. xool président Abdou Diallo kan moo amul sañ-sañu jàll. sànq am na man nangu ne amoon naa ko. Mhm. ak un oncle qui réside aux États-Unis mu ne ma su fekkoon États-Unis la oto bi su rombee dañuy dóor ay bal ci pneu yi. dégg mooy si la xam nga moment boobu mooy oto bi di jàll président di jàll nañu waxante dëgg. bu président di jàll protocole bi nangul naa ko loolu werante wu mu ko dama ne la xamal loolu wax naa la ni. Mhm. sécurité am ñooñ nangu naa ko de. Mhm. nangu nañ ko waxuma la ni la Bougane dafa war a forcer buuxante président rafetul sax ci image gendarmerie mhm. mais jarul ay délimineur la amul fenn ci àdduna fooy dem taxaw mën nañ ko téye gendarmerie mënoon nañ gérer Bougane man li ma la waxoon naa rek de mën nañ gérer Bougane téye ko ci point ba président jàll te man dama gën di président sax moom au fait jërul voir routière bi man loolu laa gëm. gendarmerie bi téyewoon Bougane bi téyewoon bu euh, Sonko moo téye Bougane te lépp ay lu ñu war a mën a gérer la rek waru woon agsi fii nii bañ koy defeere ces conditions de détention dégg naa ñu koy wax mi ngi yëpp mu yegg jaru jaru ko te il faut arrêter seen yi seen affaire yi ñàkk fayda yi nii nañ bàyyi pouvoir bi ñu utiliser di toroxal ay opposants nañ bàyyi seen yi ñuy def nañ bàyyi Bougane Gueye Dany mu ñibbi këram mu dem battre campagne candidat la jeex na problème bi jeex na jarul lii ñuy def nii yëpp quoi jaru ko quoi na dem ñu bàyyi ko mu ñibbi mu dellu ci këram mu dellu si dellu ci campagne dellu ci politique am te mu respecté li nga xamante ni moom la ko peut moom la norme yi moom la moom la ñu bokkal di wax quoi parce que man damay wax ni Sénégal amul amul justice amul dara instant yi la man parce que li fi nekkoon mooy ñoom moom lañ doon xeex kon ñoom bu ñu ci bëggee toog gouverneur réew mi tamit ñu nekkal ñoom ci jàmm loolu nangu nañ ko mais ak lu mën a xew nañ bàyyi Bougane Gueye Dany mu ñibbi këram doy na quoi doy na moom laa expliqué ci sommet commissaire Keita ma profité wàlla si occasion bi quand parle de justice ma waxaale commissaire Keita Sénégalais dafa gaaw gaaw ci hypertension diabète commissaire Keita xamuñu tam mag la mi ngi dugg ci soixante-quinze ans am ko bàyyi mu ñibbi këram balaa muy dee ci loxo ci kaso bi deful lu tax ñu war ko yóbbu instruction ñoo ko tëj ñu taxaw ne Ousmane Sonko euh, Diomaye dañu doon xuloo dañu xeex loolu warul tax ñu yóbbu nit ak jo Ousmane Sonko sax laay waxal ci boom ak Diomaye bàyyi leen waa ji mu ñibbi këram lii rafetul rafetul ci image yu Sénégal rafetul ci image yu démocratie rafetul ci ñu yàgg a xeex ñun ci ne dund nañ ko nañ bàyyi commissaire Keita mag la balaa muy dee ci kaso bi. loolu mooy dëgg lu ñuy def nii amul benn njëriñ il faut il faut que perdre le temps yoo xamante ni gën a yàq image démocratie Sénégal commissaire Keita nañ ko bàyyi mu ñibbi këram. nañ ko bàyyi mu ñibbi këram man loolu message boobu vraiment bëggoon ko si waxaale à chaque fois bëgg naa su ma amee opportunité bi am occasion bi rek ma waxoon nañ bàyyi commissaire Kara mu très bien Karim donc mu nekkoon ponk yi nga xamante ne euh, ñi ngi ko doon waxtaanee mhm. euh, sur euh, le round-up de l'actualité ñu ngi ko tijjee avec la campagne électorale bi nga xamante ne door na ñi ki tey le discours du président de la République qui a appelé aux acteurs politiques à la retenue ñu bàyyi xel sur les dérives ak propos yi nga xamante ne ñu ngi koy poser dans le champ politique affaire Samba Ndiaye gis nañu les appréciations et les développements yi nga xamante ne moom la Abdou Karim Gueye def donc ñu nekk ci lak ci commenté euh, wax nañu léegi ni sur le cas de Bougane Gueye ñu gis tamit euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Déthié Fall Déthié bokkoon coalition Yewwi Askan Wi ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko laata élection présidentielle yi di jeex ñu gis mu jël beneen voie fan yi ñu génn mu nekkoon ci sàmm sa kàddu génn fa tey ji i rejoint Euh, le parti Pastef noonu laa koy tuddee. man lecture ngay def si si wàllu boobu. xam nga man gaaw di jëfaal waaw. ndax je sais pas si vous vous dafa am benn.